assalamu alaikum bon gay adamo la boss day negri ah tay dama ko simple ma def ko sanse bu ndaw ni rek parce que ñu bari ngi nan ma no capo da nga wara yëngu da nga wara genn ma ne xaaral ma may leen bu ndaw ni rek xam nga parce que bëgguma di solo lu upp parce que xalé yi dañuy day en général man buma solo boy yi dañuy day wala ñu nekk fofu xam nga di bajantu capo da nga bo je tam tay da nga xam nga motax ma oyofal ko ni bu lolu ma ngi gëreum sama yaay quoi di sante bu baax di balu sama yaay bi ma jur ak ak mbollem ko xamanteni yaang may setan di eh, waa Sénégal yépp ma leen di jégalu di leen baalu àq ah di baalo àq bu baax a baax di jiital sama président muy Hadji Wali Ballago Seck ah su ma jógee ci moom damay ñëw ci Viviane Ndour sama yaay ji ma maman préférée maa ngi lay baalu àq di baalo àq ñépp kuy seetaan boos Day néegri di wax ne am naa contentement ci yéen am mbégte yàlla na yàlla defal jàmm gaay dégg naa nag appartement yi ñu ngi ko commencé di luy mi ngi fees dellu luyee nañ ko ba mu fees bëgguma kaawati déglu leen ma bu baax non yaakaar naa sax loolu jigéen ñëwetu ko tëj ak tijji loolu jeex na saison tëj <laughs> avec Boss day néegi bu leen ma yëngal de bisu mbëgte la am naa contentement ah kontaan naa ci yéen tey ni laa def loo leen gis sama amoo xëy kontaan ngeen